ngir am gum am solo te lu bari ci mbokk jullit yi itam waxtu wi lañ koy natt di ko ci génne ak doonte am na ñoo xam ne itam danañ ko def ci yeneeni weer waaye wii moom mooy wi ci gën a fës ndax mooy weer wi weer wi nga xam ne ci la atum jullit yi di tàmbule kon dafay aaja ñu di laabirante ak mbokki jullit yi ñu xam loolu naka lañ koy defee ak ban wàccuwaay la ndax nit mën na koy def te fekk na jubluwaayam sell na waaye defin wi mën naa wuute ak nee xam noonu la ko borom bi tabaaraka wa taala digle loolu moo tax ñu tànn ko fasiyente laabirente ak suñu mbokk jullit yi donte bunt bu yaatu la waaye lu ñu ci borom bi may ak waxtu suñu kem kàttan ñu jotal ko boo liggéey kaneen sof si incha allah mbokk yi asaka ku ne xam na ni am na wàccuwaay bu am solo ci diine diine lislaam ndax mooy ñetteelu ponku ci diine ji kon wàccuwaayam lu rëy la borom bi tabaaraka wa taala tam di ko lëkkale lu bare bari ci a ci alquran ak julli ba tax ñu wax ni seydna abu bakar radiallahu anhu wax na ni la uqaatilanna man farraqa bayna solaat wa zakat nee na julli ak asaka képp ku leen tàqale wana ni dinga julli waaye doo joxe asaka fokk dina xeex ak yow ndax day ñaari mbir yoo xam ne dañoo lëkkaloo mënoo def bii man bee ba lànk ba noppi bañ koo dañ koo def mu nekk loo xam ni itam wàccuwaayam xam nañ ko mooy ñetteelu ponk ci diine ji niñ ko waxe waaye mbir mu ci nekk itam dafay aaje yow mi koy jàngat nga xam lan mooy asaka ñu ni la àq la ju war joo xam ni dafa am ci alal yuñ ko sañ a génnee ginnaaw buñ ko génnee itam am mbooloo moo xam ni ñoom rek ñoo ko jagoo sañoo see masla ba génn leen waaye itam mu am waxtu woo xam tam sañoo ko paase yow mi nga xam ne yaa koy def nag li ngay sàmmonte mooy jéem a dëggal santaane borom bi tabaaraka wa la waaye laabal sa bakkan waaye laabal sa alal waaye laabal itam société bi nga xam ne yaa ngi siy dund kon loolu dafa aaja ñu xam jëmmi baat bi lan la àq la ju war joo xam dafa am ay alal yu ñu ko sañ a génnee ginnaaw bu ñu ko génnee itam dafa am ñuñ ko war a jox am waxtu wuñ ko war a génne waaye kenn du ko génne ngir bëgga juboo ak nit ki wala bëgga a maslaha ak moom ay ndigal la yoo xam ne borom bi tabaaraka taala moo la ko digal wax la nan la ak naka la waaye kañ lañ ko farataal dafay mat a xam ndax mbir boo koy jàngat li gën ma baax mooy nga topp ko su ko defee loo ci am di nga xam ban wàccuwaay la am boroom xam-xam yi wuute ci kañ lañ ko farataal am ñu wax ni ñu ngi ko farataale makkatal mukarrama waaye indi itam seen ay tegtal am ñu wax ni ma madinatul munawwara lañ ko farataale ci ñaareelu at ci gàddaay gi waaye ñoom itam bu ñu dëppalee ñaari wax yi buntu dana am ndax ñaari mboolem kuy gëstu la léegi mu nga dajaloo ci ñaari mbir yoo xam ni dangay defe defee ni benn wéru fekk na ñaar yëpp mën naa nekk ci kaw boo xamee naka lañ leen di lëkkalee ñi wax ni makkatal mukarrama lañ ko farataale ñoom dañoo tegtaloo ci wa waylun lil mushrikin allazina laa yuutuuna zakat wa hum bil axirati hum kaafiruun te loolu ku ne xam na ni saar woowu fussilat makkiya la borom bi mi ngi rëbb mushrikoona yi nga xam ni du ñu joxe asaka te saar yu ku ne xam na ni màkk la wàcc ñu ni bu wàccul woon màkk kon borom bi du waxee ñoom foofu xam nga loolu lu dëgër la waaye walladina fi amwalihim xaqu maalum lissaaili walmahrum ci maarij ku ne xam na itam saar woowu màkkiya la nga dem wa ma aataytum min zakatin turiduuna wajha fa ulaika hum almudcifuun kooku ankabuut ku ne xam na ni màkkiya la kon yooyu yëpp day wane ni borom bi mi ngi junju asaka moo tax ñoom ñu tegtaloo ni ñu ngi ko farataale makkatal mu karama ganeen wàll gi te loola mooy li nga xam ni lépp loolu lañ jàpp ñu ni dëgg la makka la ko borom bi tabaaraka wa taala farataale wax ko rekk rek ijmaaliyan ndax booba ku ne xam na ni jullit yi ñu woon seen alal di génn ci wàllu àddina te amul benn intérêt bu muy jur bu ñu mën a teg bët comme aaya bi wàcc na mel na ni wàcc na ñu ngi tàggat seen bopp ci jaamu yàlla waaye waxaguñ leen kayfiya bi naka la nii la wala naa ñu ne léegi bi ñëwee nag madinatu munawwara si la borom bi tabaaraka wa taala xamal yonente bi alayhi salaatu wasalaam loolu ñu farataaloon ci ñoom cër yi naka lay demee ci yan alal lañ koy génne ak ñan lañ koy jox kon mel mel na ni kon mën ngaa wax ni Makka la farata ji jibee waaye nag fi mu leere bañ man koo pratiquer niñ ko war a pratiquer moom loolu euh, madinatul munawwara la amee loolu mooy waral ngay gis ñu naan la ñu ngi ko farataal ci ñaareelu at ci gàddaay gi ci madinatul mu munawwara nga xam loolu du dàqoon dàqonteeg aaya yi nga gis yëpp ñu koy junj ci te nekkaay ay yoo xam ni euh, makkiya la su ko defee bu nit ki xësee xam ni farata la ana yan tegtal la nit ki mën a am ba xam ni asaka farata ndax lépp nit ki lu muy def dafa war a xam lii muy def lan la nan la ko borom bi tabaaraka wa taala digle su ko xamul mu laaj ko yan tegtal mooy wane ni dafa dafa war loolu mbokk yi lu lu bari la ñaare booy gëstu alquran da ngay gis ni borom bi tabaaraka wa bari na lu muy digle nii dee leen taxawal julli di joxe asaka waaye di julli ànd ak mbooloom wa aqimu sola wa aatu zaka warkau maa raakiin kooku wax na ko lu baree bari ci alquran waaye wa aqimu salaa wa aatu zaka wa aqridullah xardan xasana wa ma li anfusikum min xayrin tajidu inda allah wa xayr wa azama ajra kon loolu tegtal la ni borom bi tabaaraka wa taala digle ci alquranul karim te loolu mooy delluwaay bi gën a màgg ci delluwaay waaye boo demee itam ci njàngalem yonente bi alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne moom moo ñuy leeralal alquran andi na asaka ci ay ahadis yu bari yuy wane ni farata la jullit bi daf ko war a def mën ngaa jël hadis jibril alayhi salaam bi muy jàngal yonente bi lan mooy lislaam danu ko mooy nga seede ne yàlla kenn la yonente bi alayhi salaatu wassalaam borom bi moo ko yónni ngay taxawal julli di joxe asaka di woor weeru koor waaye di aj màkka soo ko mënee kon danga gis ni benn dalil ngoog buy wane ni yonente bi alayhi salaatu wassalaam junju na ko waaye boo jëlee hadis abdullah ibnu omar radiallahu anhuma wax na ni dégg naa yonente bi alayhi salaatu wassalaam mu wax ni bunniyal islaam ala xams shahaadati an laa ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah wa iqaami lsolaa wa itaai zaka wa sawmi ramadan wa hajjil bayt liman istataa ilay sabila foofu itam dalil la buy wane ni borom bi tabaraka wa taala digal na yonente bi alayhi salaatu wasalaam pour mu xamal xeet wi ni asaka farata la ngir ay ay tegtal yoo xam ni jullit bi war na koo am waaye itam yonente bi alayhi salaatu wasalaam digle na ko itam boo demee ci saxiixul buxaari ci hadis abdullah ibnu abbas wax na ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam yónni na mu muaz ibnu jabal yaman ni ko ñi ma lay yónni ñoom waa ahlul kitaab lañ du ay jullit soo demee li ngay njëkk liggéey ak ñoom mooy na nga liggéey ak ñoom ci tawxiid ba ñu wéetal borom bi tabaraka wa taala niñ ko war a wéetalee bu seen pas-pas dëgëree nga xamal leen julli juróom buñ sa nekkee nekk sa ba tàggatu sa baa xam ne seen liimaan dëgër na nga xamal leen ni leen nag li leen borom bi tabaraka wa jox ci alal yéen ñi nga xam ne da ngeen a woomal borom bi nee na na ngeen ci génn nangam jox ko ñi nga xam ni ay fuqaraa u lañ su ngeen demee nag ba koy génne bu leen xool alal yañ gën a baaxle ngeen génne ko ndax loolu mën na leen a découragé loo waaye da ngay xool alal di si digg bi nga génne ko bu ko defee kiñ koy jox dana ko amal njariñ waaye ñoom itam dun ci loru su ko defee boo amee tegtal yooyu yëpp ne alquran saxal na ko njàngaleem yonente bi alayhi salaatu wasalaam saxal na ko kon da ngay mën am yaqiin ci lu wér ni asaka ci ponk lislaam yu màgg yi la nga xam ne bu ko nit ki sàgganee mbokk yi lislaamam euh, du mat ginnaaw bi itam bu nu xamee ni farata la borom bi digle na ko ci alquran yonente bi alayhi salaatu wasalaam leeral ko ku lànk bañ koo def lan mooy atte bi jullit bi nga xam ne dafa lànk ni di joxe asaka ñaari nattuwaay rekk lay am benn mu weddi ko ni du farata nga xam ne yitteelu ko su boobaa moom atte bi mooy génn na ci diinay lislaam ab yéefar la ku ko rey ab yéefar la ndax dafa weddi ni du farata te alquran saxal ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam saxal na kaneen ki nga xam ni nag moom gëm na ni farata la waaye xañ na bëgg alal ak li ñuy wax nay moo ko jàpp ba nanguwu koo génne moom dañuy jàpp ni def na kabira maanaam bàkkaar bu rëy la def waaye nag kenn du ko génne ci lislaam des na ko forcé nag mu génne asaka bu lànkee lislaam maye nañu xeex ak moom ba ba muy dellu ginnaaw ci joxe gi ak donte bakkanam da say rot waaye lislaam maye na ñu xeex ak moom xeex googu itam mboolem ñi ko waxit dañuy dellu rek ci li borom bi naan fa in taabu wa aqaamu sola wa atawu zaka fa ixwaanukum fi diin bu fekkee tuub nañ nangoo julli nangoo joxe asaka lu ngeen doon def ak ñoom na ngeen ko bàyyi na ngeen xam ne léegi seeni mbokk lañ foofu lañ sukkandiku ni jullit bi bu lànkee bañ a joxe asaka bu dee réew moo xam dañuy pratiquer loolu am nañ sañ-sañ ci xeex moom ba muy dellu ginnaaw te loolu itam moom la yonente bi alayhi salatu wax nee na an uqaatila laa ilaha illa allah aw xata allah wa anna muhammad rasulullah wa yuqimu lsolaa wa yutu zaka fa in faalu dalika asamu minni dimaahum wa amwaalahum illa bi xaqi lislaam wa xisaabuhum ala allah mutafaqun aley yonent bi alayhi salaatu salaam nee na digal nañ ma ni naa xeex ak nit ñi bañ saxal ni borom bi tabaaraka wa taala kenn la yonent bi alayhi salaatu salaam borom bi moo ko yónni nangoo taxawal julli nangoo joxe asaka nee na yii bu fekkee ni def nañ ko nañ xam ne léegi seen deret mucc na kenn amatul sañ-sañ rey leen seen alal itam kenn sañatu ko jël lu dul ni jël goo xam ne lislaam moom moo koy digle est-ce que nag seen pas-pas sell na wala est-ce que seen pas sellul loolu moom dafa mel ni mën naa bañ a yitteel jullit bi lool ndax loolu borom bi tabaaraka wa moo ko xam moo tax lu bari ci ay borom xam-xam dañuy wax ni contrôler nit ki ci tawxiid ñoom loolu yitteelu leen parce que nit ki mënoo waroo ko analyser tawxiidam mel ni kuy analyser deret loolu xooloo wuñ la ko wax ko mu dégg bu pratiquer la sa des moom borom bi tabaaraka wa moom moo koy xam wa xisaabum alallah waaye nit moom kenn du ko topp di lu ñutu pas-pasam mel ni kuy analyser deret loolu moom ab liggéey la boo xam ni yow la yitteel waaye du lislaam même xeex googu loolu la sayyiduna abu bakrin siddiq radiallahu anhu wax wax na ni ñu ñu lànkoon bañ a joxe asaka nee na wallahi law manauni inaaqan kaanu ya'udduunaha ila rasulillah la qaataltuhum alayha waat na ci yàlla ni ñi may laaj asaka ñu lànk bañ koo joxe doonte giléem gu ndaw gu nuy doog jur la ci tuutiwaay bi ñu lànk bañ koo joxe aw béy doomi béy wu ndaw ak ni muy tuutee moom lañ lànk bañ koo joxe li muy tuut tuuti dana dana ma jaral ma xeex ak ñoom bañ nangu ko joxe kon loolu tegtal la ci ni jullit bi bu lànkee bañ a joxe asaka ci bu fekkee ni lu ñuy àtte ci lislaam la jullit yi am nañ xàq ci xeex ak moom ngir mu def farata jooju ba keroog mu di ko nangu walla mu dellu ginnaaw kon yooyu mbokk yi eh, dafay mat xam ginnaaw boo xamee nag ni faratala la yonente bi alayhi salaatu salaam leeral na ko am nga ay argument man ngaa wax nag léegi ban xikma maanaam ban xikma moo si nekk ci ab sew-sew ba tax borom bi tabaaraka wa taala digle ko ban xikma moo nekk ci ñu faratal azaka ba tax borom bi tabaaraka wa taala diglu ko loola moom mooy dëggi-dëggi liggéey bi ndax mbokk yi ma bi sikk sàkk amul ni doomu aadama borom bi daf ko binde mu bëgg al bëgg gi mën naa dox digganteem ak xalaat borom bi tabaaraka wa taala mën naa koo yóbbee mu dogoo ak mbokki jullitam te loolu dara mënula see dimbali lu dul nga génn ko ci anam goo xam lislaam moo la ko digal moo tax ba sa njëkk ñu ni mooy joxe gi dana waral nit ki laabal boppam ci ay ayib li ñuy wax nay wala fuqle wala dajale alal mboolem jikko yu ñaaw yooyu nangoo génn asaka te yàlla rek tax dana dimbali nit ki ba ba yaramam laab xolam laab alalam laab ndax xuz min amwaalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha kooku dana leen dolli dana leen laabal ñaareel ba itam mooy ki koy joxe xikma bi mooy ñu dimbulanteeg ñi nga xam ne ay fuqaraaw lañ li ñu am doyu leen ak ñi nga xam ne dañoo am ay aajo wala ñu xañ leen ko jox gi nga leen koy jox dimbulante la ndax ñoom si li nga yor si la ñuy régler seen ay problème